xam nga Sénégalais yi ñu duñu duñu duñu déglu duñu duñu bàyyi ñu xel ci France France fi mu nekk ni position am après Mali Guinée machin tout des pays Niger. la France a eu des problèmes France depuis Macron bi mu ñëwee ci nguur depuis Macron Macron def na des assises def na des concertations mm-hmm. consulté mm-hmm. parce que France dafa xam na ni que jamono ji bu ñu nekk nii dafa war a changer doxalinam mm-hmm. ça c'est la mission de de de Macron mais jafe-jafe yu mu am Mali Guinée Burkina mais loolu def ci gën a yeewu événement Sénégal pourquoi mu am particularité mais c'est parce que Sénégal yi defuñu coup d'état Sénégal yi dañu dem vote tànn ku leen neex. ku leen doy. mais loolu soo gisee première réaction de de de Macron Macron dafa bind Diomaye pour féliciter ko. donc France jël na décision que Sénégal yi tànn nañu ki nga xam ne moo leen neex que quel que soit la France n'était pas pour le candidat. oui c'est clair. mais la France constate que Sénégalais yi. Euh, jël nañu seen responsabilité ils ont choisi communiqué bi soo xoolee bu baax a baax nouvelle impulsion c'est-à-dire que la France ne veut pas être prisonnière de ce qui s'est passé dans le Sahel mmh. une élection démocratique qui choisit un président démocratique la France ne peut pas avoir un meilleur partenaire que ça mm-hmm. loolu moo indi même si ce président son discours est souverainiste c'est un discours. Qui... non ça c'est après. Ouais. non je te parle de de de diplomatie. donc la France constate qu'il y a une nouvelle possibilité de travailler avec le Sénégalais parce que lu ñu wax ci communiqué ñun ñoo bokk les valeurs démocratiques. Mhm. ñun ñoo bokk les valeurs humaines. Mhm. ñun ñoo bokk la même histoire. Mhm. ñun ñoo bokk la même langue. mais kooku tu peux pas tu peux pas le jeter. Mm-hmm. tout on peut pas jeter la France mm-hmm. donc c'est ce communiqué là c'est pour dire que lu ñu lu ñu bokk moo ëpp lu ñu nar a diviser et on accepte maintenant c'est pas la souveraineté euh, telle que définie oh, le respect mutuel oui gagnant gagnant gagnant gagnant oui. mais c'est c'est pas autre chose que la souveraineté mm-hmm. donc là il euh, diplomatiquement la France et le Sénégal sont sur la même longueur d'onde mm maintenant lu nar a ñëw mais ça veut dire qu'il y des négociations ça c'est au niveau bilatéral qu'il y des, négociations mhm. mais bu ñu waxee bilatéral France nekk ton premier partenaire économique Diomaye nekk président la République mm -hmm. c'est une donnée économique ça il peut pas ne pas travailler avec les entrepreneurs français gis nga là où euh, il y aura des des peut euh, des frictions lu ñu nanguloon France wala les sociétés européennes je Diomaye ne va pas l'accepter. mooy les partenariats. par exemple dans le secteur minier dans le secteur minier. gouvernement du Sénégal actuel peut se rendre compte que ces contrats-là ne sont pas justes. il y a pas de d'intérêt mutuel. Mmh. mais loolu dañ koy négocier. avec que ce soit une multinationale française ou américaine ou asiatique tu renégocies les négociations pour que nga gën a am plus de part. Mmh. Mmh. mais loolu France mënu ko bañ.